Conseil sénégalais des chargeurs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 député yi ñu daal di gën jege askan wi njiitu réew mi di Macky Sall niki démb daat nay tuumaal li nga xam ne mooy changement climatique bi nee na lépp moom la ndax du rek bëri na ay réew yoo xam ne am nañu ay jafe ci lu jëm ci wàllu mbënn mi banlieue bu Ndakaaru ba léegi maanaam ñoo ngi ci biir ndox mi yéen a kaay gii di li Quotidien mu xëy di ñu xamal lu toll si juróom-ñaar ci ay milliards dugal ko ci ndox mi ñett ay milliards mu fas yéene koo nga xam ne ñoo loru ci mbënn mi évidence yéen a mu xëy di ñu xamal lan ñu 750 milliards yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñuy saafara wàll

Sall ni ki démb ba muy wax waroon na nag dëggal boppam wax na ñoom seen bopp ñoo lajj waaye dafa lànk kandaare bañ a li nga xam ne mooy lajj tegi di ko jiiñ changement climatique bi ak askan wi yéen a kaay gii de la mu ñu xamal la ñu Macky Sall kay ni ki démb dafa mel ni ku jaaxle nee na climat bi la nee na inondation yi climat bi la te du Sénégal rek Mamadou Berté moom ab architecte la daan nay wax ne réew mii di réewum Sénégal du ñu déglu ñi nga xam ne maanaam ñooy techniciens yi la ñuy bàyyi ñuy doxalee neex yéen a kaay gii di Vox ma ngi woon ca banlieue bu ndakaaru ngir nag masawu ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi Abdoulaye Timbo maire bu Pikine moo ko dalal waaye moom Timbo yéene kaay gi nee na dañu ko yuuxaloo démb ba maara day taal yi yéene kaay gii di réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimaam nee na discours bi nga xam ne Macky Sall wax na ko niki démb solo si bëriwul ndax discours boobee nag li nga xam ne moom lay wone mooy ñoom Macky Sall nangu nañ ne dañoo tële ci lu jëm ci wàllu mbënd mi Macky Sall nag askan wi ci boppam la tuumaal ndax nee na askan wi ñoo dëkk ci bërëb yoo xamante ni bërëb ndox la discours Macky Sall bi dina bëri ci askan wi ñoo xam ne discours boobee dana leen bett yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamalaan ñu société civile bi ñoom ñoo ngi sàkku ab enquête parlementaire ci 750 milliards yi Birahim Seck la mu xamle nee na Macky Sall wërta tuumaal askan wi na ñoo dëkk ci bërëbu ndox yi ndax SNHLM di structure bu état bu mooy jaay suuf si demal banlieue bu Dakar wala nga dem Kër Massar bëri na ñu fa am kër SNHLM moo leen jaay seeni kër yéen a kaay gi mi nga waral ñoo ngi dànkaafu seen maire yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Alioune Sané bu yaanaa maar la mu xamle nee na ginnaaw 750 milliards yi mu munta lijjanti mbirum inondation yi ana fukk ci ay milliards nan la koy lijjantee yéen a kaay gii di Dakar Times nee na fukki yi nga xam ne état bu Sénégal wax nañ ko niki démb ñun gëmuñu fukki milliards yi maanaam gëmuñu ne état bu Sénégal jamono ji tembe am na fukk ci ay milliards état bi ci boppam bu ñu waxante dëgg amul xaalis xanaa kay dafa bëgg a tuur lëndëm askanu Sénégal di leen njaay ceeke maanaam di leen fowe ndax lu toll ci 1000 milliards Macky Sall Sall amee na ko ci biir mi Covid 19 bi rek bailleur de fonds yi ak secteur privé bi ñoo dimbale Macky Sall yéen a kaay gi de Dakar Times nee askanu Sénégal yeewu leen yeewu leen Macky bu leen diggee fukk ci ay milliards loolee mooy bëgg a ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci wàllu mbënd mi loolee rek la du leneen yéen a kaay gi de Libération bàyyi mbir moomee wax ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci usine bi defar karo sa sinja usine ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee jamono ji dañ leen di traité maanaam comme ay jaam comme ay dem ay gii di réew mi quotidien xëy ci célibataires yi def ci ab dossier bu mag ci jigéen ñi nga xamante ne ay célibataire lañ amuñu jëkkër te seeni at weesu fanweer jamono ji ñoo ngi dund ay jafe-jafe am na ci koo xamante ni faatu Diop la tudd moom nee na fanweeri at ak ñeent la am yore na xaalis maanaam situation good fine jamono ji jëkkër moo ko të xale yu góor yi dañuy faral di ñëw ci moom waaye situation rek moo tax xale yu góor yi di ko jéem doxaan xale bu góor bu ko si commencé doxaan lam ko njëkk a wax mooy lu jëm ci mbirum Mari Faye moom la mu xamle nee na amul jëkkër ma ngi liggéey good fine situation doomam waaye nag dañu koy dénigré maanaam di ko wax naan ko looy xaara demal sëyi journal bi nee na Ami Fall moom am na ay lijaasa waaye amul liggéey ba pare ab célibataire la daan nay wax ne jamono ji li muy dund maanaam lu métte métt la Abdou Khadir ko la mu xam ne nee na jigéen bala muy tekk dara ci société bi dafa am jëkkër yéen kaay gi sunu làmb ñu fekk fa Balla Diouf ma ngi dànkaafu Matar Ba nee na Matar Ba amul sañ-sañ benn yoon di jël Aliou Sarr di ko tegaat ci bopp CNG yéen kaay gi di esaan mu xëy di ñu xamal ngir jënd Ismaïla Sarr ci lu toll